basuma basuma mbare suko ko abije iba famare dia nafiyo koy samay mam rek comme d'habitude ñoma gënal mam ko gis aujourd'hui ma ñëw ci de l'Afrique et ses conséquences face au système Ce ma l'Afrique n'est pas tout simplement ponctionné, mais curtage. Et le curtage de l'Afrique n'a pas commencé par l'Occident, mais par les Arabes. Notre Afrique, détruite, monopolisée, construite par qui Les Arabes. Avec toujours des traites comme leurs acolytes. wax day dëggu mbaa mu ñagas dafa am yo xamne dama neewon nit yag na ko wax damay romb duma éclaircir yu bari mais dafa am lo xamne guerre bo xam dafa commencer am Sénégal ma si ay financement ndax bëgg jaar si man yaqal fo xamne man xamone fofu foofu la fa légui bu yagge nak dañuy dugg ci les dossiers de table c'est-à-dire des dossiers état waxuma leen affaire gouvernement yi ñu leen woon ngeen ni ko lire yii yëpp c'est du cinéma pour man mais li tax ñun ñu nekk fi ñu nekk ba tey oto bu paanee dañ ne da nga koy def curtage maanaam danga nga koy ŋàcc ba mu set wecc wecc wecc wecc depuis huit cent soixante onze huit cent Afrique am Qui donne la décision Qui a génne la décision 871 la arab ñëw ànd ak suñuy maam Mahmadi Ahmadi Diallo installé dans le Tekrour installé nit ñi suñu langue bi ñu quelque ko par force

duggal ma école alxuraan bu ñu leen di jàngal alxuraan di leen dóor oustaz si may wax ñu ne dañuy dóor xale yi yàlla na Tahirou Sarr am groupe parlementaire yéen na tal ay kuy jàngale diine maintenant bu ñu lay jàngal diine dañ lay yeew jégal ay chaîne duma la dem leen pays arabe yi ko andi woon Afrique bu forcé di ñu duma di ñu bëgg a rey moo taxoon arabe dugal loolu Afrique ah oustaz si di ko justifié non non non yonent bi biñ koy jox alxuraan dafa metti woon ba dafa feebar ah kon yàlla kon dafa jël yonent bi jéng ko jël ay yat dóor ko naan ko iqra bismi rabbika c'est contradictoire samay maama mu gënal maama koo gis <laughs> nit dangay ngay ñeme sooy wax ñu ñëw intellectuellement comment ils ont fait le de l'Afrique vers les années 1100 Yagoul 1100 dem ci War wër war wër wër wër wër war. arab Batay. War wër wër wër wër gis na borom ci la wa Mustafa mais da fay rappeler à l'ordre andi andi wat lan la presse arabe yi def ak sen roi yi foog ñu andi waxtanu rasulullaay moy lan hadith nar ak ni mu mënee fen nar ak ni mu ñemee yalla nar ak lo xam wa yow nar nar lu mu ragal tok fay joy yeen xam ngeen nar non

dem len fu len neex vérité ñew ñu ñew len fi du arab xam lan mo tax hadith si yëpp fan la jógee je défie quiconque kenn dula la andil hadith yu teglo ne la bi sallallahu alaihi wasallam moko wax sama kanam ça n'existe pas amul mais naka lañ def pour appauvrir intellectuel africain yi imam malik imam Khazali, imam ba xam nga ne bo daan andi hadith bu rafet dañ la daan fay les pays arabes là pour ñu monter hadith yow bo daan joggé say duul ak say leup ak say rêve fu sori andi ko yow mi arab joxé na ah man de mos dégg ben saabo ni li dañu lay fay khalis 600000 hadith mille ku dundal diiné 23 ans ñu né wax na six cent mille der bu ñuul ñu ñew yeew ko jëng ko suñu maam bañ di bañ di bañ di bañ di bañ di bañ di bañ ba ba bañaa ba arab qu'ils ne ñii pas dara culture Mambe, à partir de 1100 nous mu commencé jël des responsabilités 1200, mu de jël responsabilités pour l'empire du Mali ñi à lañ ñu andil ak naa lañ commencé jàngal dañu commencé la paresse Nous dañu commencé appauvrir intellectuellement ce ñun li à nekkul dëgg parce que liñ ñu que yëpp ñu ngi koy sodomiser c'est arabe la sodomisation c'est arabe arab dañuy sodomiser sen bir ñom ñu bok ndey ak bàyyi la sodomisation c'est arab li yonent bi tere ci alquran yëpp c'est arab nan sangara def lu do neex c'est arab tay ñu bëgg tay demay gi Sénégal am ño xamne dañu naan no buma nekké député buñu nekké député ñom cagatu bi daf fi jeex yonent bi fekk na fi caga wala fekk fi caga amul yonent bu fi fekk tiaga bu fi fekkul tiaga péripatéticienne la c'est le plus vieux métier au au monde cagatu. Ma bëggoon am sañ-sañu tay nek député tay réew mi votel mo dina xam kan moy ñew taxaw naan ma non dañuy forcer jàngale diiné école dañuy forcer li, dañuy forcer eh Sénégal ñu ci forcer dara. dañu nek ci cohabitation sociale dëkkandoo sociale nous ñun suñu Sénégal doon ay sénégalais d'abord, comprendre nous, ni fi yi daan comprendre d'abord. mais yow nga ñew naan ma damay forcer diine arab bi ki ñew ne la damay forcer diine romain bi man ma ñew ne la kemit la damay forcer sama diine mam légui fu ñuy mujj guerre civile la ñuy dëkk bi cesser de nous imposer ces religions dans une république laïque man dama gëm laïcité man ñittu république la gëw seen affaire yu diine yi ngeen mu bëgg tégal buñu démé assemblée li assemblée bi yenn loi yi kenn du fa duggal waxtaan wax deug neex yalla 95% de musulmans 98% de nafiq ngeen bëggu ñu imposer des lois religieuses quel genre de loi religieuse on doit voter buma nekkon député dina bokk si saga saaga seen ndey ak loi bobu parce que gëw ma ndey seen loi religieuse yi je ne crois pas man man duma ñew di gëmlo ñi Père Nawel man nekkuma seen fenkat yooyu je ne suis pas un manipulateur religieux ñu jóge ci foofu nous avons andil ñu leen toujours lay nekk bi tubaab ñëwee ñoo fekk arab jëngu ñu tënk ñu riposte si dem ñi arab les jënd pour tënk. Afrique de l'Ouest d'abord le Sénégal la jaar pour tënk à partir de Saint-Louis ont fait nous jàng alxuraan ba tey ndar dañ koy dañoo civiliser. ndax lan arab yeeween duma la noq la ba sa taat gi tàng ba nga mokkal alxuraan mu lay sorol nag yëre yu rafet nag ngay sañse yaa siwlise si ñaaru ndar ndax da nga mokkal alxuraan nga ñëw def ko tu ne connais rien t'es très pauvre d'esprit fii la leen arab jaar ni kii moo gën kii kee moo gën kee kee moo gën kee moo gën ba créer subdivision totale bu am Sénégal waxuma la Afrique da ngay gis kiy julli di seexlu moromam chrétien famille yëpp am na problème boobu boo bëggee takk diw boo bëggee takk diw kan moo ñu ko andil la colonisation le curtage yow lan la africain amoon bu léppam di dox lan la africain ñàkk di fi diina yëpp duggusee lan la africain amoon laa la wax ba léppam di dox lan la africain respecté woon ba léppam di dox lan lañ ñëw gëmlo africain ba appauvrir ko ba ray seen tool ray seen ñu dem guerre mondiale et ak ñu ñu appauvrir Afrique de l'Ouest bi tuba bi La colonisation dañ koy rom ndax man ay affaire esclavage je ne crois pas man xam nga rek je suis trop libre d'esprit colonisation pré indépendance la leen andil 39 49 juif yi sont déportés. ana Liban du pays arabe ana ay pays arabe doon cotiser nek Sénégal am fa banque di cotiser ci djihadisme bi ba États-Unis yëg ko ba top len ana ay naaru libanais ñu ne len ay libanais len c'est des arabes ñu ñëw occuper lu ñu occuper Sénégal yëpp ngeen bëgg a gëm ne ñooñu ay libanais c'est des déportés juifs c'est des citoyens complètement français à part entière français mais juif Nations Unies mu ngi leen Sénégal gën leen ci Côte d'Ivoire Gabon Afrique de l'Ouest colonie yi mu kii Mali parce que Modibo Traoré Modibo Keïta moo Côte xëpp 1949 ñoom Ali Jaber ñoom Robert ce c'est pas des Libanais c'est des juifs d'origine guerre mondiale moo des def Libanais les français ont bi ñu xam ne fu ñu leen munti jaarale ñenn ñi Afrique lañ leen wàccee créer leen des fausses cartes d'identité nationale lan moo tax bi ñu ñëwee ñu leen ci capitale parce que capitale yi y avait quoi y avait les administrations françaises et les renseignements de tous les pays moo taxoon fu ñu leen jëloon dans le bassin arachidier Ñambur Louga bi jàmm amee ba jàmm am lan la France defaat jël ay juifam génne waat leen ci bassin arachidier bi posone suuf yi ñëw jënd loo leen lépp lu wër pare nungu loo leen Dakar yëpp ñoo ko moom léegi ñu naan naaru libanais naaru libanais c'est archi faux ils sont tout sauf des libanais koo ci yóbbu Liban mënu la wax fii mooy dëkk maamam ana ñu si maam seen maam daan topp sëñ Touba kéewal du tëb doom ji bët c'était des faux problèmes infiltration yu bëri yu bëri yi tubaab xam tey bind ko ci sëñ Touba genre bëkk néeg yooyu ñoo fa amoon genre naar yooyu di nekk kër maam Abdou ñooñu ñoo ñëw toj Sénégal c'est une grande communauté juive bi nga xam ne dañoo dugg si adduna ba métrisé communauté boo xalaat ci àdduna dañ ko maîtriser ndax lan lii moo ko def c'était des réfugiés juifs en grosso modo Abdou Diouf ñëw ubbi leen banque bisis Moustapha Niass lu ko may alalam na len ko wax premier négociation ñaata puits pétrole pays arab bu mu ñëk demon négocier bu ko sangor yoni je vais me taire aujourd'hui mais je défie quiconque Moustapha Niass je le cite en direct pour duggal len tay ci état ak profondeur état la jeunesse nekkatuma ci di len ci détail yi ngeen nekk système bancaire bi ak business mais Moustapha Niass fa la jëlé alalam ak lan mo tax mu am alal Moustapha Niass dara ci Sénégal ngay naanee pétrole moo tax ma yi nga feebar bay naax yow sa yaram deretu sénégalais may naa étudiants may naa étudiants c'est de faux problème Moustapha Niass pays arabe mu njëkk dugg senegal lañ njëkk may ay puits pétrole neuf puits pétrole foofu laay yem tey si premier pays bi senegal amoon na fa neuf puits pétrole Moustapha Niass si xarañam mën route leen a fait de 9 de pétroliers sur contourner le gouvernement de Senghor par d'autres amis arabes, égyptiens, nous avons oublié société pétrolière. Moussa Fagnes, avec ses 9 puits de pétrole, moi, je suis bon, moi, pétrole au Sénégal. Je suis même Wade, bloqué le pétrole et le gaz, mais waroon ngeen posé wu la question lan moo tax mais comme boobu ñëpp contre Ablaye Wade ñëppay noppi mais man moment yi nag nekkatu ci dama contre Sonko dama bëgg kii xam nga ci lu ma nekk système bi foog mu tëb te bi foog mu tëb foog ñu laal yax yi bu jaree bakkan ñu joxe kuy sàcc Sénégal dundee alalu Sénégal Moustapha Niasse moo la ko gën dundee feebar moo lay rey jabet wax naa leen ko ba tey ku dul dundee lu lew yokk ko moo lay ray jëmmi sëñ Bamba moo lay gaañ député du métier ñu bëri am nañu alal ngeen naw leen Moustapha Niasse nag moo moo naan suñu pétrole plus de quarante ans xale yi juddu woon bi Moustapha Niasse di commencé naan suñu pétrole ñun Sénégal am nañu quarante ans ba am ay sët léegi 1982 83 bi muy soutenir thèse di défendre affaire góor jigéen di jël góor jigéen en 1978 de conduire dugal Sénégal puis pétrole yi moo taxoon Moustapha Niasse il a ses propres puits de pétrole yow lolo yow tey Ousmane Sonko yow tey loolu yow ngay jàppee nit ni, enrichissement illicite lu sénégalais yëpp moom yow kese nga jël ko ne ko dindix mais loolu nga jàppee gars yi noo mais jàppee ko Moustapha Niasse yow it Moustapha Niasse woo ko ne ko yow it say pétrole cartelu pétrole bi foog mu dagg temps yi dama ne woon du ma wax moo tax je reçois des appels de partout Je sais que les profondeurs de l'état sont dóor pas taxaw di nga grand journal je ne ma pas journal parce que je ne suis pas les informations timing bu ngeen diapason ne ngeen un général de l'armée ne xam xamul dara ba dara Moustapha Niass da ngeen ko war a convoquer pour enrichissement illicite yéen la jeunesse tey ku ci pauvre ku ne Moustapha Niass bokk na ci loolu appauvrir li muy jaay Sénégal lañ ko mayoon moom en tant que ministre des affaires étrangères bu doon wax arabe père Moustapha Cissé moo ko fi nandoon mooy l'ambassadeur la moom it saay mu dóor ko daal Sénégal ñee ngeen fi ñu bëri ñoo xam ne bu yomal xiyaamee yéen a leen di gën demin jarul ragal Moustapha Niass tey bu dooroon

dina wax ñepp te ku mu wax dañ lay jëli mais nak yeen li ngeen demone séti keur Farba Ngom bi Macky Sall waccé lañ leen ne dem leen jëli ji armée dem leen jëli ji machine bi défar xaaliss dem leen jëli ji machine bi défar passeport diplomatique ngeen yéexantu armes yi nag leen gisee africain yépp di jabatu Sénégal rabapapap rabapap Mali xex bu fa amoon moori bëri yi fa amone manam armée yoy pour doon ambassade Ukraine wax ci armée yoy fuñ ko jëndé won Ukraine bi yàlla Russie non armée yi ça bien participe ci attaque Mali bi am ay mort armée yi Macky Sall jëndoon pour muy clair boobu. boo leen gisee africains yi di saagantey Ousmane Sonko nii teg ci seen bakkan nekk ci chaîne de télé waxtaan bu jotee dañ koy wax neex te Sonko yëgul fan la armée yi jaar pour génn mais armée yi boo leen téyee tey Farba Senghor téye ambassade Ukraine génnee information yi comme mais c'est dommage nag ñoom ñoo leen di jox information yen vous ne pouvez rien mais les armes ont bel et bien participé à l'attaque du Mali Armée Mauritanie la jaar Armée de ñu transité won ba cinq commandos ana cinq commandos marins yi deewoon ci bateau armée où sont ces armes élection législative la jëm de foog dëkk bi lèr. nangi ma yëgale ni ISEM ak anti ISEM nak ñoy xex. jàpp na ne Pastef ak blogu MNS Tahirou Sarr anti système beneen bloc bépp c'est le bu ñu amee groupe parlementaire nii la ñuy continuer Abdou Mbow dina taxawaat fu neex di saaga duñ ci mun dara keneen ak keneen dina taxawaat fu leen neex di saaga duñ ci mun dara sama waxi démb mooy sama waxi de bu Sonko amee cent cinquante députés na Tahirou Sarr am quinze députés wala na am douze députés wa ilaa la jeunesse secret laa leen jox Tahirou Sarr na am groupe parlementaire bu amee groupe parlementaire ISEM bi Aminata Mbengue Ndiaye xalifa Sall ñoom ñëpp kenn bëggantewul ñu ngi topp ci ginnaaw étranger ganugunu kenn bëggul kenn ñoom ñëpp waruñoo am cinq députés ñoom ñëpp réunis la jeunesse parce que ñoom ñëpp biñ leen boolee élection présidentielle amuñu deux pour cent la jeunesse réfléchissez réfléchissez élection yi nag dafa am lo xam leneen def ci laxasu parce que man passif dañu yaakaar ño xam lépp te xam ñu lépp mais ana Mouhamadou Lamine Bara gay Mouhamadou Lamine Bara gay chargé des affaires et des missions de l'adjob à la lonas coordonnateur Qui donne diriger élection les lépp lépp lépp lépp lépp la job élection présidentielle Amadou Ba la campagne, la campagne la campagne saf xam c'est le directeur général de l'OGIS OGIS c'est l'office de gestion des des infrastructures sportives xam l'office office adjoint la Diop moo koy gérer koo xam ne Amadou Ba lay politigal moom lañ jël ci kaw xale Pastef ci kaw ñoom grand père ñi nga xam ne dañoo bind livre kenn pistonneew leen ci kaw ñoom Diop Taïf et eh bien voilà ci kaw booy yooyu la ñuy jël ci kaw ñoom booy Azoura Fall la ñuy jël sa crétin de Mouhamadou Lamine Diop laa nekk géejewaay di def lu ko neex Amadou Ba di tëj ku ko neex jël ko nome ko un DG waa léegi il de Pastef saay lima li ma di xale yi dama koy yobbu ba sës déggoo leen wax di man may nek genre député bo xamné tay buma doon député dama ñëw né jeunesse bi diriger né jeunesse bi wax né jeunesse bi né jeunesse bi deglu jeunesse bi nga tank que len jeunesse bi tank da ngeen fokk ne mak ñaa xam lepp ci jumté ngeen di dëgg fokk ñu déglu jeunesse bi fokk jeunesse bi wax comment un gars comme ça qui ma xam ne ne lu xew ministère yendu ci cellule bi mak lepp fépp lay infiltrer Sénégal amu fu mu dul dugg Mouhamadou Lamine mii Baara Gueye mii élément Amadou Ba la mu politique la Jóob waa Géejawaay yëpp xam ko gis ko di di ci teg seen bët ba Bassirou Diomaye Faye jël ko fal ko mais comment man ñoo xam ne suñuy ennemis li ñu dem bëgg bokk par force jiitu ñi nga xam ne ñoo xeex xeex bi man j'ai des problèmes moo tax li Sonko jël décision ne waa parti kese mais say parti kese waaw mais jeunes yi kese. J'ai une priorité détenu. yi ça? priorité détenu, éveillé. priorité détenu, instruit. Détenu, qualifié. code deux cent cinquante buñ doon doon ay suppléants nañ ko Taïf déjà il est un député dans sa tête je ne le connais pas man ne naa ba neexuma ci li mais c'est que je suis rare, il a beaucoup bëgg assemblée au moins ñu am benn genre sa daxta Serigne Diop yëngal Sénégal ay ñom pas puritain Fall yeen xamu leen genre député yooyu ñom tonno puritain ay ñom sa daxta Serigne Diop ñi nga xam dañuy ñëw andil la assemblée nationale background boo xam mais cinéma buñ ko doon défé parce que bobu système daf ñu doon tromper dañu yëgal ni c'est des comédiens or ñooñu c'était les Cheikh Anta Diop en miniature mais on avait rien compris les pas non on avait rien compris mais là vous êtes éveillé la jeunesse foog ngeen andil ñu ay député normal ay député Samba Mbayaan soxlaatuñ ko la jeunesse combat bi c'est le système et l'anti-système Roussard a day am groupe parlementaire Sonko day am 4 5 groupes parlementaire mais Taïr Roussard, ngir yàlla man loolu laa ñaan la jeunesse na am groupe parlementaire ñu xam ne buñ chef de l'opposition ñu ne il fait quel genre d'opposition une opposition participative c'est-à-dire andi ay projet de loi yo dire non à la CEDEAO couper les ponts avec la CEDEAO couper beaucoup de choses avec la CDA et beaucoup de relations rétablir entreprise Tout bi nungu comment ay nous ñu leen Sénégal Nari est mon Bank Nari nungu Nari c'est archi faux c'est des juifs Moustapha savons Nous yi blanchiment d'argent di naan sénégalais yi sommes yëpp ñu nous koy Nous ñu ne kenn du wax sommes leen la jeunesse éveillez-vous ISEM dañu paré pour rend ko te depuis 2019 bimu la nane tayru tayru sar ñeneen ñi ñew naan ban tayru sar ngeen ko doon jaawale bi nek impôt dedet boy bi la ka doon wax ba tey maa ngi ci sax anti islam radical bi anti islam dem door leen bal sen biir keur comme ni Idrissa sek defon Khadim Bousso ñun genre anti islam bobu lañuy wote boy booy yi nekk leen ci Guinée yi caxat caxata leen loolu yéen ko yek ba pare amna benen nouvelle bu jot ci benn groupe WhatsApp

mais Tahirou Sarr campagne bes bu rombé Grand Dakar wala fenn karawam jog karawam karawam la lox karawam jog wala xeer jog si convoi li xewon Mauritanie su boba campagne bi day dag xam nga lan mo fi am senegal campagne anti guinéen su boba yeen ñep vous allez rentrer wut len jàmm mo gën li ngeen wax. xam nga si man ngeen dugg pour jaar naan ma noo Tahirou nii ba mu jaral len ay saga man tam josib ndax faalaw ma état bu mo ñewon tay wacc senegal li may wax ni dama koy wax Tahirou Sarr na romb ab guinéen jël xeer dóor ne du fi romb fii muy mbeddu dakaar après ma xool ndax guinéen du ma leen andil guinéen génn Sénégal wala da ngeen di des Sénégal saaga ndey yi ngeen may def nag wala yi ngeen di def Tahirou Sarr yéen a xam de mais bu xeer jóge wala bloqué convoi Tahirou Sarr man xeexuma pour yéen man xam nga ñan laay xeexal indien yi bëgg moom Casamance chinois yi dugg Casamance di dagg bant bi di ko dugal Gambie kenn du wax te loolu Sonko mu ngi teg sa sañu ko wax ndax xam na lu ko fa dëj du rébellion bi ñoom xam nañ du ñun ko benn instant du ñeen du ñoom du ñële du armée du kenn kan mooy dagg bant bi ban chinois lu chinois yi signé ñun man fa nekk man pour lan ambassade France bañ leen jox visa di lekk seen xaalis te tubaab yi di fa dugg si moom ñu man fa nekk nekkuma ci yéen la communauté Peul. bu leen jëlati mukk sama numéro fenn osé di ma yónnee message di ma saaga bu leen ko defati mukk ndax bés boo leen cofee karaw Tahirou Sarr jour boobu génn génn ci la ma yore Sénégal sama wax sax du bëri su ngeen ni génn ci man li xewoon événement Mauritanie yooraa pire parce que da ngeen njaboot ba pare te boy yi toll nañu foo xam ne nii jël leen di leen dibi ak naan ndox la ñu yemale bu leen poussé bouchon bi ba mu ngeen pum ngeen ñàkk basuma basuma